ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة ورحمة متصلة وفدية مقبولة منك إلى روح أمتك أجا وجوف لوالده اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة وفدية مقبولة منك إلى روح أمتك أجا وجوف اللهم أوصي صواب ذلك إليها واجعل النور يسعى بين يديها اللهم اكرم بي مقامها ويسر به حسابها وضاعف بي صوابها وجعل الرقيق المقرن شرابها اللهم انس وحدتها وارحم غربتها وتجاوز عنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين انت امرتنا يا رب بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا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

président Abdoulaye son excellence le président Abdoulaye Wade ñak na ko ko jege femme de confidente la woon si moom ñu koy aussi le président Macky Sall xaritam la woon xaritam la woon ndax euh, gouvernement président Macky Sall bi mujjee ci la nekkoon mom ministre ñu amone ay relation particulière ñi ni war ka mëna cédé ma sul taxaw tamit wax lu ñaaw ci mom malgré toujours l'adversité politique jambar la bo xamné né ne ak nit dara mënu ka ñaawal lolu war nañ ka mëna a ci euh, mom li ci dess moy ñaanal ko yalla yalla na yalla xaré aljana sédal seddal ci kaw ba su mu tamit ba su yaakar la ndax ba su it ñu taggal la nit ku jégué askanam ku jégué won njabootam lu ñuy def rek jaalé ko njaboot bi tamit jaalé ko wa jokul njuureen mi nga xam fofu la soxé ko muy fi nga xam def na fu lu ne dama naan awa job awa la won awa la won awa senegal la won awa afrique la won Dengay dal amna lu nakhari senegal amna lu nakhari legislature assemblée nationale aussi amnañ lu len metti ndax nak 93 dafa dugg genn fa euh, dernière législature bi la su bokul muy 13e ndax bobu jël na pratiquement sa retraite politique yalla nako yalla xari aljana duñu def lu ñaanal ko gungé ko fi nga xamné moy mujjub kërëm delu ci ñaanal ko yalla diko jalle mbokku di jalle imam yi di jalle chef de quartier yi ndax ñëpp ay nitam lañu woon ñëpp jàmm ak salaam la seqoon ak ñoom. salaamaaleykum maa ngi tudd Lamp Fall ma la doom waa nit ku baax la nag waajur la mais nit ku baax la nit ku baax la ku ñeme ñeme njaboot ko ku ñeme njaboot ñun moom sunu sunu famille yëpp laay bëgg a wax ñëpp kenn sonnul ndax moom amul kenn ku sonn ndax moom ku ñeme njaboot la kenn mën wax si moom lépp daal loo bëgg di wax nekk di wax tamit day bëri ba li mu def daa bëri da mën a fi wax lépp. te comme man moomu jur man am na yoo xam man ma sori daal. asalaamaaleykum mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw bu ñu santee yàlla euh, man maa ngi tudd Abbas Seck nekk doomi alxaaji Gana Ndaw Seck sa Bargny soxna Awa Diop suñu tante la am na doom bu ñuy wax xari jota Seck suñu rakk la ñoo bokk benn papa awa mi fi jóge tey nag suñu yaay la ndax suñu soxnay papa la wuuf nañu taral nañu sargal nañu lu nekk lu ngeen xalaat rek def na ko ci njabootu Gana Ndaw Seck awa mii yann ko yàlla xaare àjjana te xaare ko sa àjjana yi gën a kawe lépp lu mu bëgg lépp lu mu daan def ci àdduna fii bu demee fa mu jëm yal na ko fa yow yëpp fekk ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla teeru te sargal ko. maay madame Mbacke Adja Ndeye Mbeng bàjjenu Awa Diop xaritam. ànd ndoom xale ñuy ànd lekk nit rek leen defal nun ñaar wóor na Sénégal gépp groupam bi muy àndal yëpp stafam kilifa yeeg ñëpp bàjjan lañ may ooyee ndax moom càmb yaay ca ba gànn lu ko war ci famiyam def na ko lu ko war ci njabootam def na ko baax honnête sincère dëggu lu mu la wax rek dëgg la amul tappale amul caaxaan fonk nag wasilaam maam Cheikh ni Cheikh Saad bu Cheikh bu xeertu bi muy sunu sëriñ di sëriñu bàyyi mag ndeyam fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu joge jullit la taalibe la lii mu def nag si Sénégal gépp laa waxuma Ndakaaru de ak Tëngéej Sénégal li mu fi def yàlla na ko teeru sa àjjana ji mu jëm yàlla na ko teeru ak bépp jullit ci barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ma yóbbu Makkaan 2005 Awa Diop yàlla mu ragal mu ragal fa mu jëm yal na ko maam Cheikh na Cheikh Saad bu teeru jébbal ko yonent bi sallallahu wa sallam sallallahu wa ko suñu borom. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla di julli si Seydina Limaamu Laay al Mahdil Muntazar alayhi salaatu wa salaam man nag man maay sukkee Jóob mu awa Jóob ndax awa sama lépp la awa moo ma tette moo ma dugal ci politique. ñu nekk nekkandoo PDS mu nekk responsable nationale des femmes PDS man ma nekk vice coordinatrice des jeunes filles libérales de Rufisque et département mu nekk ku baax koo xam ne lu ne def na ko si parti PDS awa baax na ndax dañu ne nit bu baaxee danga koy laaj ay mbokkam te awa lépp lu mu war a defal ay mbokkam rek defal na defal na ko ay mbokkam rawatina ñi nga ak ñi nga xamante ne sax bokkul sax aw bayna na waram si ñom aw kay liñ kay ñaanal rek moy yalla bu ko cat si bàmmeelam man yaguma deggante ak mom ndax man toujours ma ngi communiquer ak mom par whatsapp Diko envoyer ay ñaan moy tontu tontu yu yu yu day wax awa dal nax ma ba dem waye fu jëm yalla naka gënal fi mu ku bax la nak ku deggu deggu na te tek nañu suñu njub ñun ñi and ak mom awa tek nañu suñu njub ba kenn sañatul fen kenn sañatul tok nek ci deru jàmbur jikkom rek la cultiver ci ñun ki nga togal nak di jigen ju bax ji moy ajaratu aw njaay jub di mak ci aw awa di petit mi fi joge tay ji jigen ju bax ji jur leen ajaratu mam ngone njaay yalla na dajeeg ci bar saqu sayidina muhammad jigen ji awa top ci mom ño bokku nday ak baay waye ki tok tay ji du mën a wax ndax ki mu ñak kenn la ki fi joge tay sagub senegal la sagub rew mi la sagub tengej la yalla nako yalla sagal ci bir bambel aw job bu dee ko ñu bind rasulullah tax li nga won rasulullah burum biye makki burum suturasi burum boof rek ci président Ablaye Wade dina du jog tey jii ba yàlla ñëw ko dogalam lu jafe ci réew mi waaye Gandiaye Borse Ndiaye fa mu toogoon rek fa la toog ba yàlla ñëw ko dogalam nu ñàkk ku rëy ku am jom ku am diine cheikh bi dellu nguraan cheikh bi seexal ko Gandiaye Borse Ndiaye fàttewul ay bokk ajor taw jóg cheikh bii nu ñàkk yàlla na dee di laayam te ngi jooy na Sénégal jooy na ki nu ñàkk ci giiru maam Ismaïla la bokk Ibrahima ay maamam motax yalla bayyi ba nu lewetal xar ba pare mu yob ruugi yalla dajje sayidina muhammad ki tok xolam toy na way sunu xol toy na ndax man ki tok mo man ñoon ci biir kër gi boole mak awa awa ni ma fek ma ngi dund dootuma xol kenn dootuma xak kenn yow rek kon Diop yalla nga fi yag te ki nu ñak ku ko ñak joy ko ki nu ñak ku ko ñak waxtane ko jigen ja xaru wenn melo wa ba dem tay ji bar sax yalla de dee dinoof ay bokkam tok lu ma sa xew ci askanam bu dikkee ñu xamni ñewna lu ma sey ci askanam bu yëg seenoo xamni ñewna ñak na nak waye nag waaye na duñ deseeg yàlla la yobbu sayyidina muhammad fi baye Cheikh Aw Diop yow wajje na yalla dajje sayyidina muhammad limu def ci ci lu bax yalla ko fekk fu mu tedd xol la ñoo bokk ne tay la ko defal ko naqari bi ko wone gannaaw ki joy ne bu yalla doon taggo aw dem waaye ki lay may du la tàggu bu lay xañ du la tàggu ki nu ñàkk yàlla na yow àjjanam Diop bul jooy san ku des dese yàlla nga fi yàgg job téwér man mi wax ak yow nii man la boole ak taawam bu jigéen may mun a sàmb yóbbu ma màkk ba bërk démb bi ma koy woo rek ñuy sargal président Abdoulaye Wade daf ma woo ne ma roqee ma ne ah mu ma ndax xalé dañ ma wo wax mako ko ne ma dañuy defal permanence bi yónnee na len 500000 pour ñu defaraat permanence bi mune ma man da damay dem sax nguran waaye comme man ci invité d'honneur yi laa bokk la yónni yow ak Maymuna Samb ak doomu Aminta Samb ngeen demal ma ndax man damay dem nguran. ndekete bobu feebar bi lamay may suma ko nee ma ngi ñëw ne ma man damay dem nguran. kon nag ñoo ngi koy jaale Sénégal gépp ndax Awa Diop moom du Awa Diop bu Tëngéej kese Awa Diop bu Sénégal la démb fu nekk nit wootee na fa fu nekk nit dem na fa jóge na fa buntu këram ba démb euh, yoof dafa fees dell ndax man bi ma jógee sama kër rek yoof laa jubal bi ma wootee ñu ne ma fii la ci laa tas nit ñi ne leen Tëngéej la Awa Diop ku mu naqari yàlla na la raw yàlla na xippee àjjana firdawsu parce que sama yaay la woon sama xarit la woon macha allah macha allah parti bi ñëpp ñëpp a ñàkk yàlla na xippee àjjana firdawsu tey ku fekk président fee France am na lu ko naqari Ablaye Wade tey am na lu ko naqari trop ndax aw jëm dem na ba du militant ci parti bi jigéenu Ablaye Wade la maa ngi koy jaale président. Karim Meïssa Wade maa ngi ko koy jaale di ko jaale ñi parti bi yëpp di ko jaale ay mbokkam allahuma salli ala sayyidina muhammad